ñu ñëwoon pour remercier euh, euh, ministre du commerce ak ay service am ci wax dëgg yàlla jéego yu am solo yiñ def ngir ñu mën a màggal euh, ci màggal gu dal comme ni ñu ko daan defee mais également manque bañ am waaye itam prix yi bañ a yokk loolu nag euh, travail de longue haleine la maanaam bu yàgg ba léegi ñu ngi ciy liggéey pour loolu mën am te ñu koy sant itam ci nekk gi nekk euh, premier ministre du commerce boo xam ne euh, dafa habitué wu chaque màggal chaque veille de màggal mu ñëw vérifier les les les produits maanaam xool marché bi ndax euh, euh, lépp doy na waaye itam ndax prix yi ñu ngi koy respecté chaque année da koy def ren nag mu ñëw defaat ko mais mu boole ci leneen loo xam ne miinuñu ko ci woon muy tenir benn réunion spéciale ndaje moo xam ne ñoom ak commerçant yi ak ñin concerné ñëpp dañ dañ faa daje ngir di waxtaanee mbirum produit yi ak màggal geeg lu ko jagal loolu nag ñu ciy sant également euh, euh, monsieur Adama Ndiaye euh, chef de service régional moom it def na ci wax dëgg yàlla liggéey bu am solo ànd ko ak ak ñun depuis loolu. pomme de terre boobu rek moom moo ci posé problème te problème bi posé sax du problème de disponibilité waaye problème de conservation la ndax commerçant yi amuñu fii Touba chambre froide boo xam ne dana mën a jël yenn quantité yi ba mën a stockage bi di fi di mën a jàpp ni waaye loolu assise ak commercant yi ko seq ñi ci commencé di xalaat déjà parce que loolu problème la boo xam ne mérité na tamit euh, secteur privé bi dugal ci seen lo seen loxo tax ñun déjà ñi ngi ciy xalaat euh, buñ ci àggee fañ ca war a àgg incha allah dañ ko waxtaanee kilifa yi ba mën a mettre en place loolu. donc pomme de terre bi daal moom moo posé gun benn problème boo xam ne du problème disponibilité waaye problème de stockage la loolu euh, c'est bon ta loolu dañ ko war a dañ ko war a dañ ko war a leeral li ci des tamit muy sant ministre bi Euh, liggéeyam depuis longtemps ci surtout ni mu stabiliser prix yi ci su euh, ci euh, conseil sur la consommation nationale boobu mu defoon loolu ñun commerçant ñun ñëpp dañ ci ànd ak moom ndax loolu tamit dafa nekk lu war a am mais loolu tamit ñuy wax ne bu ñu doxalee tuuti incha allah fii trois mois nañ defaat beneen conseil parce que tamit addina bi ni mu tëddee fi ne dara saxut lépp day day day day wëlbatiku ak di wëlbatikuwaat su boobaa ñu xoolaat est-ce que prix yooyu dañ koy reconduire wala dañ koy yokkaat wala dañ koy wàññewaat loolu it dana ci am solo waaye buñ ko fixé rek ndax it commerçant yi tamit mënut a jaay di perte donte màggal gi def nañ ci ay effort lu ñu man lépp ngir bëgg yëf yi am ceeb am diw am lépp am waaye nag ci prix yu yomb ba ñëpp mën def seen màggal ci ni mu benn problème tamit bëggoon nañ ko kii muy ci wàllu ceeb bu dijj bi nga xam ne silla silla yi moom lañuy ak looyéen ni moom la ñuy faral di jëfandikoo moom gis nañ ne xaw naa xaw naa xaw naa manqué tuuti loolu it bi ci waxtaanee ak acteurs yi li ñuy wax mooy daa yokk ci bitim réew loolu it ñuy ñuy woo ministère bi ci ñu def ay effort wàllu googu ba ceeb bi mën a disponible ndax sénégalais yi ceeb boobu lañ ëpp lu ñuy consommer euh, mu mën a disponible nga xam ne dana tax euh, donc euh, consommateurs yi itam mën a consommer li ñu bëgg ni ñu ko defee ci bele bi def ko ci yeneen produit yi Euh, euh, ñoo xam yan mécanisme la ñuy jël ba loolu man a am euh, xuma dañuy annuler TVA bi xuma nu ñu koy defee ñoom ñoo xam ni ñu koy def waaye fexe daal ba mu am loolu ñu ngi koy kiyaat surtout tamit nag ci dernier point boobu lay tëjee muy affaire nouvelle taxe yi tamit wax dëgg yàlla commerçant yi ñu koy jooy waaw le PROMAD prélèvement pour la modernisation programme pour la modernisation de l'administration douanière loolu pour ñun loolu du temps am TCF bi taxe pour la conformité fiscale jàpp nañ ne loolu nekkaguñ ci période am donc loolu lépp ñu ngi ci woo euh, acteurs concernés ñu waxtaane ko ba bu ñu ko dee suspendre ñu suspendre ko ba ñu génn période yi parce que nous sommes euh, dañoo ne ci période de crise te période de crise euh, de dëgg la état def na génne génne na 45 mille 47 milliards ci gafakaam waaye ci beneen côté bi itam daa mel ne daa laajaat yeneen 47 milliards. loolu xam madame la ministre bi marché Ocass lakkee ci ci novembre ñëwoon na fi. Euh, ak ay ak ay ak euh, kii am ak service am yëpp euh, def observation ci marché bi bañ gis situation marché bi ni mu demee ba ba ba waxoon na ba ba jaroon dañoo sax am benn marché bu ñu dem ban ban defoon étudier ak yëpp ñu waroon fee def 20 milliards je pense ci li mu waxoon DCI yi loolu nag ñun ñoo ñi ngi sàkku vraiment ñu ñu accéléré ko ndax condition yi commerçant yi surtout clients yi di di jàngoon na ci marché yi métti na.